الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على مجمع شؤونه وحقيقة كنه سره سيدنا ومولانا محمد بهجة الكون وضيائه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم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 gën a sell gën a sakkan doy walis bépp nuyoo te benn nuyoo manta doy walis ko nuyoo boobu laa tibbeeti sama xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa del siwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon ak yow ci waxtaan yépp passé ma dëgaloon la tey ne waxtaan wi dañ koy jagleel ay xeeti jaam jaamu hun yoo xam ne yàlla ñu ko sant ngi di ko ko jaamoo am ci yoo xam ne buñ ko ko jaamoo ci mbaaxam suñu bàkkaar yu njëkk yeeg yu mujj yi yu ñu tay ak yi ñu tayut yu ñu xam yi ñu xamut yu feeñ yeeg yu nëbbu yi yépp mu boole ko jéggal ñu ko ci mbaaxam ga am ci yoo xam ne buñ ko ko jaamoo mu jéggal ñu yu njëkk ya rekk waaye yu mujj yi bokkut ci am ci yoo xam ne buñ ko ko jaamoo mu jéggal ñu yu ndaw ya waaye yu mag yi bokkut ci am ci yoo xam ne nag yu mag yaag yu ndaw yëpp dugg nañ ci biiram dafa ñu koy boole jéggal ñu ko loolu lépp dafay tegtale ne yaatug yàlla gi ak mbaaxam gi ak yërmandeem gu yaatu gu lëw gi ba tax na nag kon jullit bu ne war naa jéem a jikkoo ci jikkoo yàlla yooya te moo jikkoo mbaax jikkoo yërmande jikkoo ak yaatu bañ a ci ñi nga xam ne dañoo xat xol ñàkk yërmande boole kook soxor ba bu ñu sañoon moom jaami yàlla yëpp dem safara te loola mbon la moo daloon benn arabi mu mos a taxaw tur ndox xam nga loola ñàkk ak yar la ba mu paree mu ne allahuma arham nii wa warham muhammad wala tarham baadana ahad yow yàlla mii yàlla nga ma yërëm soo ci bàyyeekoo ci man yàlla nga yërëm sayduna muhammad gannaaw ñun ñaar daal yàlla bul yërëmati kenn ma ne kon nag aljana dana weddi yaag yonent bi rek ci aljana kon aljana wéet te loolu lépp xat xol ak ñàkk ak yërmande ak xatal yërmande yàlla ji rekk koy waral bam ne allahuma arham nii warham muhammadan wala tarham baadana ahad ak ne yërmande yàlla ji yaatoo wa rahmati wasiat kulla shay'in ja foo koy dugal te dafa yaatu xatal yërmande googu moo daloon benn jàngkat jàngkat booba kenn nettaliwuñ ñu ko ku dul yonantu bi yonantu bi moo taxaw dajale ay saxaabaam ne ci ñeneen jiitu woon de xamoon na ci jenn waa joo xam ne lépp luy sa xalaat ci mbon sa xalaat ci caay-caay sa xalaat ci dëngate sa xalaat ci mooy yàlla def na ko ba mu demee ba lay fëgg xolu nit ñi fëgg xolam mu bëgg a dellu ci yàlla takkaay dàllam laajte kana dàq jàng ci jamono ji ci kaw suuf ku fi ëpp xam-xam ci gox bii may dund ñi am benn borom xam-xam buñ ko joxoñ mu dem seeti ko ànd ak yar ànd ak teggiin ne ko sumay bàkkaar dafa bëri sama ngon dafa fés sama ñaawteef dafa sakkan jamono ji nag dara fut ma lu dul yàlla dellu ci moom dong la bëgg balañ ma caa delloo may laaj ana lan laa mën a def ba yàlla moomu wax na yërmandeem ju yaatu gi ñëpp xaj nañ ci mu yërëm ma te jéggal ma sama bàkkaar yu bon yi sama bakkan dong ak manqué ak mbonte mu ma ko yóbboo waaje ne ko bala ma laa wax ndax yàlla mën na laa jéggalam déet danga may wax lan nga def waaja ne ko man de li ma def li ci gën a néew rek laa lay wax la ca gën a bari moom mënuma koo wax waaye la ca gën a néew daal te gën caa fés téméri nit yu manki ben rayna len juroom ñent fukki nit ak juroom ñent 99 mu tolloog turu yalla yi yeen jankat ni ngeen koy waxe lu toll nonu ci nit rayna borom xam-xam ba yeengal bobbi ne ko ay jëru sonu safara nga jëm kenn nit rek ko ray safara nga jëm waxuma la ñaar waxuma la ñett waxuma la ñent ba fukk ak ba fukk ak juroom ñent ba ca juroom ñent fukk bu manki rek tegtal waaye jële mu taxam mi dan fa jasa woo jëxan na mu ja mu tegtal waaye jooja léegi nag waaja tamit ne ko comme man safara rek laay dem kay xaaral ma jekkali la rek téeméer bi ku ma laajati na ñaat nit nga rey ma ne téeméer téeméer a gën a yomba wax ci làmmeñ juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ma jël mu jël jaasi ji rek teqali batab sëriñ daara ba toogaat ba ci kanam la fëggoon xolam ba bàyyiwut ko gëna a yokk mu bëgg delu wat ci ba lañ ko caa delo mu laajaat ci jamono ju ko fi dàq jang ku fi dàq jang ñu takkal ko ben borom xam-xam mu dem ci mom ne ko luy saxalat ci lu bon ak ci ñaawteef def naa ko waaye jamono ji may wax ak yow dara safut ma lu dul yàlla yàlla ma saf dama bëgg delu ci balañ ma delloo ma lay laaj nan laa mën a def ba yàlla jéggal ma samay bàkkaar mu ne ko loo def bala ma bala ma laa wax loola mu ne ko téeméeri nit rey naa leen ki ma mujj rey déggoon nga sëriñ daara diw mu ne ko waaw man koy déggoon naa ñu ne ay woyoo ko rey mu ne ko man mii la woon maa ko rey aa ah, kooka nag atte ko ci yërmandee yàlla ji comme na ko kee attee woon ci mbugalam yàlla mi mbugalam yàlla mi léeg-léeg boo koy wax ngay foog ne ñëpp xaj nañ ci te ñëpp xaj nañ ci tamit te du wàññi dara ci nguur ak yàlla ga waaye yërmande yàlla ji léegi léeg boo koy wax maanaam dangay ngay yëg ne ñëpp xaj nañ ci te mën nañ caa xaj tamit te du wàññi kenn dara kene nag ba mu ko xàttee ca mbugal ma kii xàtte ko ci yërmande ji ne ko daal li ma lay digal fépp foo doon defee lu bon bu fa demati gàddaayal ko gental ko dem foo xam ne mosoo faa def lu bon nga jéem faa sanc dëkk fa ci baax ak yàlla gi man na laa jéggal yàlla ku yaatu yërmandi la ya ibaadi alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna laa yaxfiru zunuba jamian kooka da koo atte foofa kii atte ko ci wa man qatala muminan mutaamidan fa jazaahu jahannamu su ko defee nag ñaar ñii nii lañu àttee kii fa àtte ci yërmande ji kii àtte ci mbugal ma léegi nag mu ne ko sëriñ yaa bari xam-xam yaa baax yaa ma gënal ki ma bàyyee ko xoon takk ay bagaasam fu mu xelaat war faa dem rek xelam daj na foofa mooy naa fa yàlla te dee naa fa jigéen mbaa ma nan fa sàngara mbaa ma faat fa bakkan wala ma wala ma sàcc fa àlli jàmbur mu jigi mu xelaat nag benn dëkk bu sore sori ne musu ko faa def takk yi bagaasam di dem yendoo ko fanaanal yendoo ko fanaanal ba ci yoon mu dee ñaari malaaka yi ne dereet mbugal yi ak malaaka yi yi ba ñu ñëwee nag malaakaay yërmande yi ne aljana malaakaay mbugal ne fu ngeen ko teg jàpp ca tànk ya commencé ñoo di safara coow la bari ñi jàpp ca loxo ya aljana ñi jàpp ca tànk ya safara ñu koy xëccoo yàlla xebal am malaaka mu ñëw pour war leen kooko sol bu doon wa jamono ji robbum avocat ñëw ne leen fu ngeen ko jëmee yéen ñi tàpp tànk yi ñu ne safara ndax lii la doon def mi ngi nii mos def lu baax Yen fu ngeen ko jëmee ñu ne aljana ndax léeg léeg li lu doon lu baax lu doon wuti rek ba far dee malaaka mi ne leen natt leen fi mu bàyyeekoo woon doon def lu bon ak fim mu tëdd su paree yéen ngeen natt fi tëdd ak fim don doon bëgg a defee lu baax su paree nag ngeen jël ñaar yi euh, distance yi ngeen seet ban moo ci gën a gàtt bële moo sutoon fuuf ndax moom dafa commencé woon départ rek dee waaye yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem ji nag taw wi yoon wale wu gàtt wa mu guddal ko def tayu yoon wu gudd wa mu gàttal ko gaa yi nag rek fa mu jëm daal gën a jege bàyyeekoo ay kilomètres yu bari mu ne leen nag fa mu gën a jege rek foofu mooy xatteem kon fa mu doon jëm pour nekk fa def lu baax moo gën a jege fi mu bàyyee doon def lu bon xatte leen ko ci lu baax loola ñu mujj jël waajoo ga dugal ko aljana te xoolal kooka ju téeméer nit ray na ko yonent bee ko wax doon ko nettali saaba yi xoolal kooku luy sa xalaat jigéen gu bon gu ne tëddee na ko sàcc na li jàmbur naan na sàngara def na lu bon ba tàyyi waaye bi mu dogoo ci jël ay loxoom yu tilim ya ko yàlla rek yàlla ne du ma delloo yaakaari ku ma yaakaar am na ci beneen xadis boo xam ne yonentoo koy nettali saaba yi comme nii ñoo toog mu ne leen ah ki ñu leen jiitu woon de lu bon lu sa xel daj def nako nan na sangara sàcc ke de nay jigen waxna lu bon waye nak dafa musa tukki ci yoon mar dab ko mu dema dema dem ba ci ten mu mu genné dal sang yi muy dal yoyu genné ko tak ci boom dugal ndox ci bir ten bi mu am ndox mu nan ba mandi mu gis ben xacc ci peggam ma nga mar bay tàllal làmmiñam wa mu ne li ma dal de moo dal xaj bii waaye li ma def la mënta def rek te sama dëkkandoor la ndax dëkkandoor ibnu sabil ci la bokk su ko defee nag kon mu jàllar biku dugalaat dàllam dugal ko ci biir génnewaat ndox wàqi ba mu xóot ci suuf mu jox xaj ba mu naan ba màndi yonentu bi nee na ci ci la yàlla dëgg mbooleem bàkkaaram yaag rëcc rëccam yépp yàlla du mooyu ko ca jéggal ko tàbbal ko aljana kon yàlla yërmandeem ji bu ko xeej kenn ñëpp a ci xaj yàlla yërmandeem ji bu ko jombalee sa bopp loo bon bon bon bari bàkkaar bu mu tax mukk nga naagu ci yërmande yàlla ji su ko defee kon defal rek la bu sëyruy waxoon nee na daal man daal yaakaar naa yërmande yàlla ji bu ëllëgee buñ koy séddale ña gënoon a bëri caay-caay gën a bëri mbon ñoo cay xëppale su boobaa nag kon kenn ku ne la nga xëppale woon ni nga cay xëppalee kon moom su boobaa mu danaa ci bëri le lool su ko defee kon nag yërmande ju yaatu joojaa tax ni ma la ko waxee woon ci waxtaan yi passé fu yonantu mos sa dégg aw yiwu woo xam ne bu ko njabootam defee di aw xeetam dana tax ñi raw xeet ya leen jiitu woon comme ñoom seen fan dafa gàtt ñu mën koo dabaatale ci ascenseur yi ñuy mën a yéeg mu gàttal seen aw yoon yonantu na ko indi lépp loo xam ne buñ ko defee dana tax seen bàkkaar yàlla jéggal leen ko ba tax ñu ñu bañ tilim euh, maanaam wala buñ tilimee ñi mën a set su boba timit dana leen ko bakari, na leen def leen ko ndax ngeen mukk ci bakkar yi def leen li tamit ndax ngeen seen yiw wi gëna mëna yok nit ku mundi di doon bu sété ci bàkkaar boole koog aw yiwam bari aljanaam taxaw na motax kon waxtaan wi ñu koy jagleel tabarakallahu ay njàngaleem sayduna muhammad ci ay hadis yu wér ci loo xam ne bu ko jaamab yàlla bi defee ci mbaaxam bakaram yi jiitu woon yàlla jéggal ko ci boobu nag maa ngi ciy jiital luñ dee tuddee salaatu tasbih yow may déglu na nga ko teewlu bu baax a baax a baax bàyyi ko xel timit te di ko def mbir mu nekk boo ci saxee di ko def rek bu yàggee nga man ko dootoo ko fàtteeti masala daal lay tax nit ki mokkal ko mooy pratiquer ko rek waaye jàng denc doo jëfee doo am benn njariñ waaye mi ngi mel ni jël sa jaas ji nàmm rek denc xeexi woo defoo ca dara taggoo ca dara amul njariñ su ko defee kon jël sa fetal dugal say bal denc xeexi woo defee woo dara amul njariñ su ko defee kon nag ndigle yàlla yi nga xam ne dafa amul njariñ ak xéewal lépp jariñoo mooy tax nga mën caa jariñoo njariñ daal jariñoo yi tax maanaam borom mën caa bénéfice wu julli la goo xam ne am na njariñ lool boo demee ci imaamu tabaraani génnee na ko abu naim génnee na ko jele ko ca ibnu abbas ibnu abbas domi bàyyi tax yonantu bi la abbas mi ko jur de nga de abbas mi ko jur mok yon mok mok bàyyi yonantu bi di abdallah ño bokku nday ak bàyyi ibnu abbas mi nak mo jele ci bayam abbas mu wax ne bayam ñewal na yonantu bi ben waxtu waxuñ nak suba la waxuñ ngon la ba mu ñëwee yonentu bi ne ko ñu ne ko kii de sa bàyyi tax bi moo nekk ci buntu bi mu ne digal leen ko mu ñëw ci la ñëw nag mu dugg si bi mu ñëwee yonentu bi ne ko yow sama bàyyi tax a heure bi nga may seet si boo seetee xadis bi ni mu fa mel guddi la wala muy heure yi bëccëg yoo xam ne heure boobu nit waru cee seeti nit mu ne ko nag waaw man de heure bi laa ñëw seet si la man mii nga xam ne sa maanaam bay mu ne kon nag yow sama doomi mbokk mi tudd maanaam tudd euh, maanaam ay ay ay xew-xew ca cay cay cay cay jaahiliyaak xatak àdduna beeg bàkkaar yu bëri yeeg yu doy waar yeeg lépp jafe-jafe mi daal mu wax ko ko nit ki nag boo demee ci médecin lu lay métti da ko koy wax li ngay yëg nga di ko ko wax bul bañ dara su ko defee loola mooy tax moom mu mën a jaar fi lay mën a faje moo tax ibnu abbas moo wax ne baayam abbas moo seet si yonantu bi waxtu woo xam ne du waxtu wu ñu war a seeti nit bu ñëwee ne ko sa baay tax de ñu ngi ci buntu bi mook sa baay ñoo bokk ndey ak baay di abbas moom ne dafa ne dafa laa soxla mu ñëw mu ne ko ah heure bi nga ñëw di ma seet seem mu ne ko jaaxle rek ci bàkkaar yu bëri jaaxle rek ci bañ a ci yaram wu tayal ci mën a ñàkk mën a def yi bëri jaaxle rek ci jafe-jafe ak jamono jeeg doy war gi waxa waxa wax ba waxam jeex ci joytu yonentou bi ne ko waaw kay lol dal nga ne moy say tank, mu ne ko li de moy sama tank, mu ne ko nak kon ah, man de mangé sante yalla mi nga xamné mo tabal ci sa xol ci li dégg nga de man na mu ne ko nak njàqare gi nek ci man timit yëg ne kenn ko kenn ko dindi jafe-jafe ku dul ki yalla dong ko meuna dindi fa alimtu annahu laa yufarriju anni ahad illa allah suma anta kenn mënu koo dindi to yàlla ak yow yow dong ak yàlla yéen ci man dara waaye suma la wax de waxut ko ne ko yàlla rek ko mën a faj ak yow bu doon ak yow rek istiraaki la waaye defe na ko yàllaa ko mën a faj topp yow léegi nag yonent bi ne ko alhamdulillahi alladi awqaa hada fi qalbika waaye waaye maa ngi sant yàlla mi tàbbal sa xol lii ba nga yëgee jafe-jafe yi ne kenn mënu koo dindi ku dul yàlla topp man loolu maa ngi ciy sant yàlla mu ne ko nag yow suma bàyyi tax kaay ma may la kaay ma jox la tabaarakallaahu loo xam ne soo ko defee yàlla jéggal la sa bàkkaar yu njëkk yi ak yu mujj yi yi nga tay ak yi nga tayut yi nga xam ak yi nga xamut yu feeñ ak yu yu njëkk ya ak yu mujj yi limal ko ko ba mat fukk wax nañ ne waxtu wam ko doon seet yi waxtu gannaaw tàkkusaan la su ko defee na bi ko waxee lii ba pare nag ah, abbas ne ko loolu de soxla naa ko moo doon samay tànk mu ne ko daal na nga julli ñeenti rakkaa rakkaa bu ci nekk fatiha ak saar wo mokkal baax na fatiha qul walaahu baax na fatiha falaqi baax fatiha ak baax na fatiha ak inna baax na loo man yaa xam ci alquran na ca na mar rek loo ko teg ci saar yaa xam gannaaw boo jàngee fatiha ja ak saar wa ba pare ca rakka bu njëkk ba boo buy saar way jeex rek bu dul koo taxawal nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha akbar fukki ak juróom fekk bi nga koy wax yaa ngi aw gannaaw bi fatiha ak saar wa jeexee ba pare nga wax lii fukki yoon ak juróom loolu ma wax yëpp nag benn yoon la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wala akbar benn la nga waxaat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wala akbar ñaar la nga waxaat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wala akbar ñett la noonu nga koy defee ba mat fukk ak juróom fekk yaa ngi taxaw gannaaw fatiha ja ak saar wa su paree nga rukkoo tee say wóom waxaat loolu ma waxoon fukki yoon te mooy subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar fukki yoon fekk yaa ngi rukkoo su boobaa tamit nga siggi wax sami allahu liman hamidaak rabbana wa lakal hamdu waxaat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar fukki yoon su ko defee nga sujoot wax ko fukki yoon bu paree nga toog gannaaw bi nga sujjootee sujjoot bu njëkk bi ca toogaay ba nga waxaat ko fukki yoon su paree nga sujjootaat waxaat ko fukki yoon su paree timit nag nga toogaat foofa xam nga sujjootab ñaareel kenn du fa toog waaye foofa da nga fay toog nga waxaat ko fukki yoon boo ko calculer juróom ñaar fukk la ak juróom boo ko seetee juróom ñaar fukk ak juróom yi daal gannaaw fatihak rek mooy fukk ak juróom bu ko mooyee sest boo defati rek fukki yoon la fukki yoon gannaaw ba nga rukooxee fukki yoon gannaaw ba nga siggee Fukion rukoo ba fukki yoon ba nga Fukion sujoot bu njëkk fukki yoon ba nga su ba nga toogee ci diggante ñaari sujoot ya fukki yoon ba nga fukki yoon gannaaw bi nga ko ca ñaareel ba loola bu fekkee fukk ak juróom ya gannaaw ak sarwa juróom ñaar fukki sàbbaal ak juróom lay doon rakka bu njëkk bi nii la rakka am ñaareel bi noonu la nonu bo pare nak nga tok fa taaya su fekke guddi nga koy julli bo taaya bu la neexee nga selmal jugaat kabaaraat indihaat yenen ñaar rakka ci comme nonu nga hat selmal julli ga mat su la neexee su fekke yang koy julli ak beccëk nak mom dañ lay tanalo su la neexee nga nga nga boole ñenti rakka yépp gannaaw bi nga taayaa tok fa jugaat andi yenen ñaar rakka yépp taaya selmal comme ni ngi jullee tusubaar ak takusan rek ak gehe nga xam bo amé ñaar rakka da nga tok taya waaye nak da ngay jugaat andi yenen ñaar door a taaya sëlmal su fekkee beccëg nga koy julli bu la neexee tamit boo ko julli beccëg su xamé ñaari rakka nga tok taya seulmal jugaat andi yar yenen ñaari rakka toga taya seulmal dañ lay tanalo buy beccëg buy li gën so xamé ñaar rakka rek seulmalal jugaat indihaat ñaar rakka sëlmal kon nii la ñuy jullee salaatu tasbih mu nekk loo xam ne boo calculer sàbbaal ya maanaam rakka bu ne juróom-ñaar fukki sàbbaal ak juróom la muy soixante quinze sàbbaal boo ko jëlee nag ba muy quatre fois trois cent la lay jox maanaam soixante quinze fois la muy ñetti téeméeri sàbbaal mu ne nag noonu ku ko jullee guddi la bëccëg la sa bàkkaar yu njëkk ya yu mujj ya ya nga tey yi nga tayut yi nga xam yi nga xamut yu feeñ ya yu nëbbu ya yu mag ya yu ndaw ya yëpp yàlla jéggal na la ko bi mu ko waxee Abbas nag Abbas ne ko soxla naa ko dee mu ne ko jox naa la ko ñun ñu ne soxla nañ ko dee mun a jël leen yéen ñëpp muy xeet wi ku ko ci man ba mu ko waxee Abbas war mu ne ko boo ko manee bët bu set nga julli ko wenn yoon soo ko mënut weer wu ne benn yoon soo ko mënut xat mu ne benn yoon soo ko mënut maanaam sa dund gi lépp lépp lépp nga fexe ba ba julli ko ci wenn yoon kon julli gu baax la soo ko mënee daal guddeeg alxames gu ne bër seddi ajuma julli ko xiw du doy guddeeg dimanche gu ne bër altine julli ko ba tey xiw du doy ndax ñaari guddi yi ñoo ëpp ngëneel ci guddi yi semaine bi ku mu ci ñaari guddi yi yërmande yàlla day wàcc ba tollok asaman si tim ñu ne kuy jéggaluma jéggal ko kuy ñaan ma may ko yow nag su la fekkee nga julli julli ji bokku ci ñu jéggalu su boobaa maanaam benn bal la boo xam ne rey nga ci ñaari pitax muy muy muy jéggalu yàlla ga ca guddi ak def luy tax yàlla jéggal la muy salaatu tasbih gi timi maanaam ca e, ca ca maanaam guddi kon su boobaa loola nekk na loo xam ne lu ama am njariñ la julli gango yonento ko waxal boppam du waxi kenn mu jox ko bay taxam bi di abbas abbas bam ko ko joxe rek lañu ko joxale ñun ñepp mu ne julli ji yonento koy wax ne ko boko julle ba pare sa bakari bu xemoon ni biddiwi asamani yi asamaan yi biddiwi ki ne kenn ko nu muy bari bari bari bari bari nga xamne ne mooy tolloog biddiwi asamaan yi ah, mooy tolloog kaasi kawsar ya te xam ne kaasi kaw sare julit ñëpp kenn ku ne sa kaasa bop amul man naan abal makas. kon xam nga ne bari na de boba nak sa yu yi to waxal bopam ne donte mi ngi tollo ni biddiwi asaman yi wala mu tollo ni kusi beñ bi suuf ni mu bëree beñ bi wala mu tollo ni duusi geej gi su boba yalla jéggal na la ko na nga rafetal sa njort ci loola kon xam nga loolu baax tam na ko fa isa faraqta walau kanat dhunubuka misla adadi nujumi sama maha allah wa in kaana misla ramli aajilin maanaam mahahallaa wa in kaana misla zabalil bahri mahahallaa kon julli gaangoog gu xam xam solo la jullit bu nekk na ci góor góorgóorlu di ko def ci dundam benn yoon wala weer wu ne benn yoon wala xat bu ne benn yoon wala semaine bu ne benn yoon wala bis bu ne benn yoon wala sa dund gi lépp lépp lépp lépp nga fexe ba def ko ci benn yoon soo ko mënoon daal guddeeg alxames gu ne rek bër di aljuma nga def ko wala guddeeg dimanche gu nekk bër set di altine nga def ko li bokku na ci yi kafara bakar ba tax na lim yi kafara bakar moom salatu tasbih lañ cey njëkk wax kon salatu tasbih ngoog euh, niñ ko waxee tabarakallah ñun ñëpp timit ñi bokk ci euh, góorgóorlu ci euh, beneen bi timit ci li nga xam day kafara bakkar yonent bi wax ko mu ne gannaaw ak aljuma bu salma sëlmaleetee bu len jug bu imam salma sëlmaleetee sa tank yoya nga togon di taya ning ko leemee won bala nga lemmarti na nga lu nga taxaw jang fa fatiha jurom ñaar yoon bu jeexee nga jang ayatul wu jurom ñaar yoon su paré nga jang falaqi jurom ñaar yoon su paré nga jang nasi manam qul wallahu ahad kon juroom ñaar yoon falak juroom ñaar nas juroom ñaar muy juróomi juróom ñaar juróomi juróom ñaar yi képp koo ne gannaaw sëlmal ak julleeg avant ngay lemat sa tank bi ni ko leemee hon ci togenu tayaba nga jang fatiha juróom ñaar ayatul kursi juróom ñaar qul wallahu juróom ñaar falak juróom ñaar naasi juróom ñaar yonentou bi neena sa bakkar yi yalla na la su boobaa kon nag loolu tamit yomb na bëriwut kenn ku ci nekk war na cee fexe walilahi alhamdu wa sukuru di ca góorlu di fexe tamit maanaam di ko matal ndax nag jéggalu yàlla dong ak luy jéggale bàkkaar yi moom lañ fi dese eh, yàlla ñaari kóolute la ñu joxoon yenoon too ko wax dafa ne utiitu amaanayni li ummati qaala allahu taala wa ma kaana allahu li yuazibahum wa anta fihim wa ma kaana allahu muadibahum wa hum yastaghfiruun fa ida mittu taraktu fiikum al istigfaar dafa ne man de sama xeet yàlla jox leen ñaari kóolute benn bi mooy dafa ne feeg maa ngi fi yàlla du leen mbugal su ma génnee àdduna baleen fi nag ci zahir kon benn la ñuy desee mooy jéggalu yàlla luy tax ñu jéggaleen seeni bàkkaar rek kon booba bu ñu ko baxee rek perte nañu kon nag yonent bi dem na ci zahir liñ fi dese nag mooy luy jéggalu yàlla suñuy bàkkaar rek mu yoon wu ñu gàttal ba suñuy bakkaar yu bari yooyu yëpp yàlla duñu ci xool dara ci mbaaxam ci njëggalam mu jëggal ñu ko ak li muy bari bari bari kon maanaam euh, li li kafaara bàkkaar loola bokk na ci ah, bokkoon na ci sax maanaam nga xoor weeru koor weeru koor wa jeex rek nga tofal ci juróom benni fan ci weeru woy ku ko def ñu jéggal la say bàkkaar bokon na ci sax wéru koor wi ñew nga naafi la guddi ya di hor ya yalla jëgël say bakkar hadis bi wax nako man qama ramadana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi fi mu ne man sama ramadana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kon yépp manam dafa bok ci nga xam ne saxo ci baxal yalla yermandem ju yaatu ji jullaw ji su boobaa yàlla dafa lay jéggal say bakkaar kon loolu euh, maanaam am na solo lool euh, bi ki tegu bokk na ci li nga xam ne koo def tamit ñu jéggal la say bakkaar ab gumba mënta gis ndeysaanam nga téye ko xommat ko lu mat ñeen xam nga loolu baax na ku mënta gis yow yàlla may la ngay mën a gis nga fexe ba gis ko di ko dimbale di ko dimbale di ko jéemu jéegu ngay dox diko diko diko tété ba mat lu mat ñeen fukku jéggu soko défé yalla jéggal say bakkar du waxi kenn du waxi kenn de waxi yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la kon li tax dal ñu jéggal ñu bakkar yi walillahi alhamdu wa shukru bari na lol yoyu nga xamné tuddu na ko ci lenn la ci waye tamit li nga xamné euh ah, manam dana ko tuddu ci mom tamit mooy nekk sax li li li li li li gën a li gën a bëri li nga xam ne ni tudd naa ko ci lenn li kon euh, loolu maanaam benn la ci nga gis tamit bokk na ci tudd baatab laa ilaha illallah soo ko defee kenn googa nekk aras jaayu yàlla ne ko doo dal mu ne ko du ma dal mukk lu dul walilahi alhamdu wa sukuru ki tudd sa tur wi da ngaa jéggale bakaram soko deful man duma dal mukk bokko na ci lo xamne ko def yalla jéggal say bakar yu jitu ye ak yu mujji moy kep ko xamne yalla dimbal na la nga japp japp la mat sekk lañ wara raxas lepp nga raxas ko bayyi ca dara legi nak japp gogu nga japp rek matal japp ga rek day jéggal sa bakar ndax bakar bo defon ci loxo da nga raxase loxo ya day rot andat ndox ma nga galax ndiko lo waxon ci sa mu tuur ànd ak ndox ma nga sorox ndi ko loo foonoon ci sa bakkan bi mu tuur ànd ak ndox ma nga jàllal bi ko sëlmu loo xooloon ci say bët xooluwut mu tuur ànd ndox ma nga masaa bopp lu bopp bi ronu ko wala bopp wala bopp ronu ko te ronu wuutoon mu mu tuur ànd ak ndox ma nga koro koroy nopp ya loo déggul woon wala nga dégg ko te dugutoon lu ñu waroon a déglu wala lu ñu waroon a dégg mu tuur ànd ak ndox ma nga raxas tànk ya lépp loo doxoon ca tànk yooyaak la mu ëmb lépp yàlla dëgg ca jéggal la say bakkaar hadis la boo xam ne Usmaan moo wax ne maa ko dégg ci yonantu bi sa alayhi wa mu wax ko mu wax ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul laa yusbiqu abdun wudu'a illa xafara allahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhara loolu boo ko defee sa bàkkaaru njëkk yu mujj yëpp da lay yàlla boole di jéggal li jéggale bàkkaar bokk na ci yonantoo wax képp ku dégg noddukat bi mu noddu lu mu wax nga wax ko lu mu wax nga wax ko ba noddu ga jeex waaye nag fenn rek ngay wuteeg moom boo bëggee jeexal yow tamit bu nel hayya ala salaati ak hayya ala falaahi yooyu moom da nga koy remplacer la hawla wala quwwata illa billahi alil azim xam nga benn bu ci nekk ñaari yoon la koy wax kon yow ñaari yoon boo ko boolee ñeent la kon da ngay wax la hawla wala quwwata ñeenti yoon su ko defee door a mottali nag la kenn noddu ga la hawla wala quwwata illa billahi alil azim mu ñeenti yoon nga doore nak mottali nodd ga la ca dess nak remplacer ko hayya ala salati hayya ala falaahi legi nak lolu boko defé defee yonentoo waxal bopam ne sa bàkkaar yi nga amone yàlla jéggal na la ko waaye su boba nak soko waxe waxee ma noddukat bi jeex rek da ngay wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wa an wa ashhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabban wa bil islam diinan wa bi muhammadin nabiyan wa sallallahu ala sayyidina wa alihi wa sahbihi wa sallim mu ne soo ko defee sa bàkkaar yu njëkk ya yu mujj yëpp yàlla jéggal na la ko kon boo déggati kuy nodd buy wax waaye ni nit ñi di li nga dégg dégg ku bëri wax nit kaa ngay nodd ngay wax ci téléphone rek nit kaa ngay nodd ngay tarara di wax rek kuy wax a wax a wax ba njëkkati kàddu yàlla na nga dégg ko danga war a noppi ba kàddu yàlla gi daanu looy waxati nga wax ko ndax wax moom kenn mënu koo jeexal ñaar rek a fi ne wax a góoma ak waxaat a góoma li nga waxagutoon mënoo wax lépp la nga waxoon yëpp mënoo koo waxaat kon comme ñaar yi mënoo koo jeexal su kàddu yàlla gi yëkkati kootee daaneel sa kàddu noppi lu noddukat ba wax nga wax ko su demee ba ne hayya ala salaati nga ne laa hawla wala quwata mu ne hayya ala salaati waxaat ko ne laa hawla wala quwata illa billah al-azim ne hayya ala al-falaahi nga ne laa hawla wala quwata illa billah al-azim mu waxaat ko nga ne laa hawla wala quwata illa billah al-azim mu ne allahu akbar allahu akbar nga wax allahu akbar allahu akbar laa ilaha la laa ba mu jeex nga jeexal mu jeexal su ko defee nga ne raditu billahi rabban wa bil islaami diinan wa bi muhammadin nabiyan wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sa bàkkaar yépp yu njëkk ya ak yu mujj yi nga xam ne dafa guloo ko sax yàlla jéggal la bàkkaar yooya lii kay lu ko gën nag amut fi loolu kon jar naa bàyyi xel euh, lii tax tamit euh, bakkaar yi nga xam ne dañ koy jéggalee maanaam ci liy waral jéggaleeg bàkkaar euh, bokk na ci maanaam nga julli julleeg fay nange fay nange Euh, moy bo demee ba jant bi yëkkatiku nga xol sa montor 9 heures jot soko mané na nga julli ñenti rakkaa nek ñenti selmal par ñaar rakkaa selmal nga am ñaar rakkaa selmal defaat ñaar rakkaa selmal ba muy lool mo ci gëna bari kenn du passé lo sawar sawar do passé lo bu xaté nga def ñetti selmal di juroom ben rakkaa bu xaté ba xat nga def ñaari selmal di ñenti rakkaa bu xaté ba gëna xat nak nga def benn sëlmal di ñaari rakkaa rek juleeg fay nange daal la ca gën a tuuti mooy ñaari rakkaa di benn sëlmal la ca gën a diggu dóomu mooy ñeenti rakkaa di ñaari sëlmal la ca gën a gën a xaw a bëri tuuti mooy juróom benni rakkaa di ñetti sëlmal la ca gën a bëri nag xam ne du ko passé mooy ñeenti rakkaa di ñeenti sëlmal kenn du ko passé ak loo bëri le bëri le foofa nag jàngal Fatiha ak saar woo man baax na nga rukkoo taaya amul liqaam amul dara dangay ngay kàbbaa rek xéene ko julli ko moom nag li ñuy wax naan xale du ko julleeg bu ko jullee day gaaw a dee ak lépp njuumte la déedéet xale mag a ci xam rek lu baax a baax a baax la amul maa ngi dugg ci néegam say bees duggoon naa caag génnoon naa caag xale bu góor ngaak baax na dee ko julli ndax moom day yokk wërsëg moom julleeg fay nange day waral kaaraange ci musluwaay yi gën a màgg moom maanaam ci la bokk li gën a gaaw ci yokk wërsëg tamit maanaam ci la bokk waaye nag borom xam-xam yi wax ko bul ko julli rek ngir yokk wërsëg soo ko defee sax loola nga cay xam waaye jublu ca jaamu ca yàlla kese lu la ca yàlla buuñaa ci kaaraange buuñaa la ko ci fan buuñaa la ko ci wërsëg wu yaatu yooyu yëpp nga xam ne mbaaxam la waaye man ba ma koy def dàkkuwuma ci woon loola yàlla dong laa ci doon dàkk te ku xam yàlla lu mu xamati rek nga xam ca kon ñaari rakkaayu fay nange rek ku ko julli jublu ca fàggu yool gëm yàlla lal ko yàlla jéggal la sa bakkaar yu njëkk ya ak yu mujj ya xanaa loo tooñ doomu aadama yi ci ay xàq kooku moom yoonu yàlla néew ca fokk moom yàlla ni jéggalu ba ñooña jéggal la ca abul asad noonu la ko waxee alxuseyr yi euh, beneen bi tamit euh, maanaam julleeg fay nange googa léeg-léeg nga dégg nit naan ku ko xas commencé dootoo ko baxaati njuumte la de boko commencé ba ci yag nga xat tubi, ko yonantu bi bo ci hadis bo xamni tirmisi yu andi ko indi mu ne yonantu bi daana julli fay nange di saxo diko di ko bañ wax ne dotul ko bahati leg leg mu bayiko ko bàyyi bañ fa wax ne ko jëlati kon loolu muy tek li muy tek moy so xatu julli ko bu xatee xat ba xajut fa nga bayiko ko saa demé ba fiix nga julli ko li ko doree nag neuf heures jant bi yëkëti ko ba wuy huit demi sax liko doré fofa ba fofu julle fay nangé rek digënté bobu yépp waxtam la fofu yépp xajna fa ba ba nga julé subar dal fofu julle fay nangé rek xajna fa ba taxna dal kon dal bo juggé yow mo xam da nga tudat nga yow boy japp rek demal nga julle ji fay nangé ñëkke ko su fekké da nga nekkon kuy dem ci tool ya yobbu halel japp so démé ba ci liggéey ba ci kanam nga taxawul liggéey ba julli sa yakal fay nangé su fekké timit bureaucrate nga yorel sa sajada yore sa kurus ak li ci aju sab kaamil soo féexee rek nga dem julli sa julleeg fay nange yow safoor bii di ma déglu wax dëgg boo demoon boo demoon ba xam ne yoor weer bi kii na taxawal nga julli fay nange yàqul dara da toujours nag maa ngi di wax safoor yi ne yow boo gisee client taxaw boo gisee marchandise taxaw waaye nag waxtu yàlla wi bu taxawee doo taxaw foo ko teg kii ne day jaay ambulant la yore bagage bu gisee client wala mu gisee nangam taxaw te bu den du demee ba noot du dégg ko wala jàkk ga jege ko du teg bagage sama julli foo ko teg kon yooyu yëpp lu jar a baxi xel la julleeg fay nange lu baax a baax la xale du ko julli njuumte la ku ko xas commencé dootoo ko bàyyi te njuumte la loolu lépp dafa wuuteeg njàngaleem sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon loolu wax rek la waaye yonentu waxut ko eh, beneen bi tamit bu la imaam di jiitee imaam ji wax ne amin gannaaw mi wala dallin mu ne yéen yéen ña nekk maamum yi wax leen amin yéen too wax de mu ne képp koo xam ne sa amin dëppoo na ak aminu malaaka yàlla jéggala say bàkkaar yu njëkk yi ak yu mujj yi ida amina al imaamu fa aminu fa in al malaikata tu aminu fa man waafaqa taminahu taminal malaikati gafara laahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma taaqara kon loolu baax na ñu nag xamuñ dañ dëppoog danañ eh, eh, depok ilim am malaka yam dit waye fu ilimane wala daal rek na amin rek nel amin su ko defé nak manam fofa nak timi la koy malaka yay waxee ya, rek su ko defé nak bu ngeen dëppooxee ya, rek sa bakkar yu njëkk yaak yu mujj yëpp yalla ci mbaxam manam mu jéggal la ko ta lolu amna doole su ko defé kon bakkar yangoog ak lu koy jéggalee waxon na la ci manam wéru ko ak lepp lo ni aduna ci nga dégg tamit ñu ne la bisab arafa arafa tay la bisab arafa nga xoor bisab arafa booba jublu ci fàggu yool xëy booba waa tamit yàlla jëgal la sa bàkkaar yi nga njëkk ak yu mujj yi man saama yawma arafata gafara laahu lahu ma taqaddama min danbihi wa ma taaxara abu daawuda génne na ko bayhaqi yu ñoom ñëpp wax nañ andi nañ hadis bi yonentu nee na képp koo xam ne tamit da xaj boole ko umra te mooy da nga boole xiraan aj ak umra nga boole su boba timit yalla jéggal la say bakar. su ko defé kon timit képp ko xamné ne ko nga masjidul haram masjidul aqsa gele ci falastin dem masjidul haram fenn fa ne nga julli fa jublu ci fagu yool yalla jéggal la say bakar. boo mënta dem masjidul aqsa dem nga masjidul rasul dem nga masjidul haram fenn fa nekk julli nga fa ñaan nga fa yalla yalla ci timit mu jéggal la say bakar. Batay timit, tamit bi neena kep ko xamé da nga xaj ta bi ngay xaj jëmmi yàlla ja dong nga ci jublu du ngistal du wut xajama jàpp maa damaa xaw a mel ni ku manqué daraja ngir di ma demul màkkaam ji ci xaju fekkee loolu la loolu nga cay am de bu yàlla taxee nag sa bàkkaar njëkk yaag yu mujj yëpp yàlla boole eh, jé jéggal la ko waxoon naa la boo xamate ab gumba lu tolloog ñeen fukki jéego muy dox ngay dox ba man ñeen fukki jéego yàlla jéggal la say bàkkaar ko xam dafa am soxla su mën dol doon te nit ku ko soxla am ray nga ko yo doon wax nga dimbalé ko ci soxla sa ya ak mom ñen cey dox ba soxla sa faju wala sax wut waye dimbalé nga ko ci la nga man rek mo xam ci kàddu la mo xam da nga and ak mom ngay topato identité wala muy topato passeport wala muy topato visa wala muy dem ci ngoroga wala nga ko ñaanal li bis wala nga ko tele ngenté la diko tele utale wala nga ko tele yéré wala nga taxawu togg ak ñam ci aju soxla su mën don dal nga taxawu ko ca yalla rek tax yonentu bi nañu jéggal say bakkaar su ko defé yi nga xamné moy yu yu yu ya man saa li akhihi muslim fi hajatin ghafara lahu wa ma taqaddama min dhanbihi kon lolu kon nek ci soxla doom adama yi amna solo bul bul xeebal kenn soxlam lu la wax ci soxlam lo ca man rek nga def ko ta fek rek yalla taxna soko ko rek yalla ci baxam mom ci bopam man na la dimbalé jéggal la su ko defee kon tamit yëpp dañ ci ko koy def dañ lay jéggal say say say say say bàkkaar ngay lekk ñam yàlla xéewal la ñam yi nga lekk ba pare naan bi nga pare nga ne alhamdulillah alhamdulillahi allati at'amani hadha taam wa razaqanihi min gayri hawlin nii wala quwwa yàlla jégal sa bàkkaar yu njëkk yi ak yu mujj yi yow daal yàlla jox na la wërsëg nga lekk ba pare am na ñoo xam ne lañ xam mënuñ koo lekk am na ñoo xam ne kaasam ndox mënuñ koo jàllale ñii kaasab ruy mënuñ koo jàllale yow nag nga xëy ndekki sa mburu boo mënee siis ci sax mis ngay ndékkee boole kook naan sa potam ndox ba mu fees bëgg caa teg boisson bi ne yaa ngi xëy santal yàlla mi la defal li ne alhamdulillahi alladi atamani hada taam maa ngi sant yàlla mi ma jox ñam wile te war wërsëgal ma ko may ma te man aw ma ci benn pexe aw ci benn kartan soo ko waxee yàlla jéggal la say bàkkaar loolu baax na su ko defee kon yooyu yëpp lu jara bàyyi xel la bàkkaar ci loo xam ne ku ko def yàlla jéggal la say bàkkaar su ko defee kon yooyu yu bëree bëri la waaye maa ngi ñaan képp ku may déglu bu mu wax ne nangam ku ko def ñu jéggal la say bàkkaar def naa ko dee te di nelaw soo ko defee perte nga dee da ngaa wóolu njëyam yàlla te njëyam yàlla ñu baax ñu sax wóoluwuñ ko woon ku ko wóolu da nga perte yow daal lii def ko rek muy fondation boo xam ne da yëkkati rek lu baax gën di ca teg lu gudd gudd nga xeeb ko te xam ne fa ñu jëm ci àllaaxira aw yiw du fa doy mukk waxoon naa la la ci jiitu woon salaatu tasbih waxoon naa la ko nañ koy jullee góorgóorlu ci noo ko manee bokkoon na ci julli ya julleeg fay nange te mooy ñaari rakkaay yoor yoor wala ñeent ya wala juróom mbenn ya wala juróom ñett ya yooyu yëpp baax na sax ci bu àllaaxira dana am bunt boo xam ne nga doon duggee julli julleeg fay nange rek ñoo fay jaaree duggee fa te léeg-léeg xam nga banque bi ñu ne ñi am carte ñoo jaaree fii foofa am carte dana fa am dana fa am solo de léeg-léeg timit nga bëgg dem aéroport ñu ne fii de mooy salon d'honneur bi ñi ñi ñi ñi am passeport diplomate ñoo fay jaar foofa timit am loolu dana fa am njëriñ de alaxira timit lu mel noonu dana fa am de kon nag nañuy góorgóorlu ci julleeg fay nange yi su ëllëgee ñi bokk ca ñay duggee ca buntu booba nga xam ne buñ ca duggee duñ am benn problème te naafila yi yàlla indil ñu jox ko yonantu bi du dara fay jang rek sun damu damu ci ci farata yi di gëna rafetal di gëna taral di yokku timit tabarakallahu suñu yiwu motax gis nga yonantu bi ba mu demee di rañani juroom fukki julli lañ ko joxon juroom fukki julli yoy boko sété haqiqatan xaqiqatan coono ba dongu lañu wañi way wañi wuñ ca dara jaamab yalla bu baax bu ne bëgg bokku ca ñay ñi ñi ñi baña bokku ca ñay tabé bëgg nañ bu juddé bu bu bu xeyé xëyee bala balaa juroom fukki julli mu julli ko Lola nag mooy boo xëyee yow julil ñaar ay fajar soo ca payee ko julli ñaar rakkaay suba nga dema dem ba yor yor bi dugg juróom ñetti ay fay nange tu subaar ñëw nuyu la nga ne dañ koy teral teral ko ñeenti rakkaxa muy dem nga nga nga nga teral ko julli ko ñeenti rakkaxa muy ñibi nga ne ko gan gu gan gu for ko yam dañ koy gunge gunge ko ñeenti rakkaxa takusan ñëw nga tertu ko jaal bi ko timit bam nga teral ko ne ko comme léegi nga fi bàyyeekoon ci tusubaar ji jërul gunge yoon wi yoon wi soriwul nga ba ko timis ñëw nga julli ko ñetti rakkaa gunge ko juróom benni rakkaa ne ko gan ak guddi nga dangay ngay aajowoo gunge ba mu xaw a sori gexe ñëw nga julli ñeenti rakkaa nga julli nga nga nga nga tertoo ko ñeenti rakkaa teral ko ñeenti rakkaa mu ne maa ngi ñibbi nga ne ko gën a guddi nga te yow moom dama la dinaa la gunge gunge ba mu sori benn mën naa laa gunge ba guddi gi xaaj wala ma gunge la ba guddi gi jeex wala buñ xaajee guddi gi ñetti xaaj ñaar ya wala ñetti ya lu ci mun di xam daal mooy lañ waxoon yonent bi rek yaa ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalilan nisfahu aw unqus minhu qalilan loolu lépp gën a guddi gi mu doon tax mu ne ko kon na ko gunge bu ko gaaw a bàyyi ci yoon wi am na ki ñoo xam ne nag boo waxee ñu ne ah man de su ma amee gant naa ko teral waaye tertu ko di ca gunge man duma ca fekk ñoña ñoy ño xamné waxtu wu jot ñu lu ba julli waaye avant waxtu wa duñ naafila bu waxtu wa xasee passé timit duñ ca naafila bu wéru koor ñëwé ñu lu ba or ko waye ñëk wéru koor mënuñ ca dara bu wéru koor yi xasee passé gunge ko timit xel xalaatu ko ñoña mo ñoo ñoo xam wax dëgg yalla gan guñu xam dañ ko téral waaye nak di ko tertu di ko gunge seen yoon néew ca lol nak dal na benn sahabiyu ñëw na ci yonantu bi ne ko damaa bëgg nga gaaral ma lu yàlla farataal ci man yonent bi ne ko gannaaw tudd baatu seede bi daal yàlla farataal na ci yaw julli euh, juróom yi boo ca bàyyeekoo farataal na ci yow weeru koor wi farataal na ci yow joxe asaka farataal na ci yow xaj màkka waaja ku ñàkk caaxaan la moom ne yonent bi maa lay xamal ne julli juróom yi benn rakkax duma ko ci dolli moom daal julli gu jot fekk ma fi danaa ko teral a teral a teral ba mel nañ koo ko nañ koy war a teralee ba xolam sedd waaye nag di ko gàttandoog di ko gunge du ma ko def de ci julli yëpp laa la koy wax nag weeru koor wii tamit nga ne nañ moom moom la yàlla farataal ci man danaa ko xoor ba mat sëkk di ko tertoog di ko gunge nag xelaatuma ko naka noonu tamit sarax nga wax ne asaka moom a ci war di saraxee ni coobareewoo yalwaankat yeeg ñi ci territoire yeeg ñu néew doole ñi xelaatuma di leen sarax sama halal ji sama njaboot gii laa koy jox waaye nag asaka moom danaa ko génne ba mat sëkk naka noonu tamit yaa waxoo yaa wax maanaam xaj màkka danaa xaji de waaye nekk fii def xumra yu dul jeex maa ngi ci ñetteelu xumra ak fanweer xelaatuma ko yonent bi ba waajee wane gannaaw ma ne ku bëgg a gis nit ak aljana xoolal kee nitu ci nitu aljana ya la bokk kon dama bëgg a wax ne li yàlla farataal ci yow boo ca xemee góorgóorlu ca tamit ku baax nga waaye baax nag gën a baax a ko gën gën a baax nag mooy nga fexe caa yokku su ko defee ndax ku yokku yaa ngi wàññi lu damm ca lële lii man koo jàng lu cay lu rafet lii mën koo yokk lu ciy lu ñaaw lii gën ko mën a rafetal gën koo réparé wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi nga seetaanee vidéo ba pare fekk abonné ko na nga abonné te bës touche cloche bi ndax bu ñu dugalee nga mën di jot notification yi